am ñu may seet ñoo ñan la mu ne ma ah ñu ngi nii ci bunt bi ma génn xool am avant grande suite mu la ñu ne ma c'est la police man leen police heure bi mbaa jàmm mais comme délégué de quartier rek police mën na ko yee n'importe quelle heure donc man leen mbaa jàmm ñu ne ma Fara Dafe man leen wey man la Fara Dafe le délégué du quartier ñu ne ma da nga fi am convocation à la police de réceptions man leen man yëf yi daf ma jëmee kaw. bu yëgoo xale bu jigéen bi génn àdduna. lu xew 6 heures 45 lañ ma fëgg si yëguma lu xew bon man la wax d'accord xaaral ma sol sama yére may sol sama yére fi may sol sama sax police bi fekk nañ ma fa li ma gën a naqari sama biir néeg mal militarisé ba waaw ba sama jabar xaw a xuloog ñoom ma ne ko noppil bul ci wax ñii dañuy dox leen leen war a dox voilà di sol sama yére sa pooku ba fàtte fa samay téléphone man daal ma duggee ci télé ci euh, kii bi oto bi ñu dem am na policiers yu doy waar yu fa nekkoon waaw xale yu xamante ni yarawuñu man bu dee taxaw mu ne jàkkaarloog man naa ma tu risque de de de on risque de te destituer de ton poste de délégué de quartier nii la ma ko wax ma ne man yow da ngaa xam nañ ma falee wala da xam lu ma fal mu ne ma ah loolu daal naa la ko wax xam nga Saliou Ndiaye ma ne ko xam na kan ban Saliou Ndiaye mu ne ma Saliou Ndiaye mi nga xam ne day vider fosse ma ne ko Saliou Ndiaye ma xam day étanchéiteur la day étanchéité moom lay liggéey mu ne waaw xam nga Maguette Ndiaye ma ne ko Maguette Ndiaye boo ma tuddee Saliou Ndiaye de tudd ma Maguette Ndiaye ñoom ñaar doon nañu am ay problème affaire